sa maam rek tubaab bi xool ba yàgg ne ko signalement très noir de peau taille au-dessus de la moyenne des Sénégalais frontaux et larges chevelure crépue et broussailleux œil petit et vif arcade soliculaire saillante bouche grande nez épaté alliance dans le pays mariée avec les femmes les plus nobles du Baol et du Kayor descendante directe des anciennes familles royales indigènes Guet et Drobé ces familles ont été rivales pendant plus de 300 ans Ce femme se nommant premier Gagne Siri fii fille de l'ancien Damel de Kayor, Amari Ngone Fall, deuxième Gana Diop, troisième Koumba Tcheleman et tous les deux filles de Damel Ladior, quatrième Lala et Fall, fii de Sambalaube, tuée à Tuan par lieutenant Soviet en 1886, cinquième Ben de Fall, veuve de Sa maam ndawam daan na ñëw fii sëñ Fallou Fall la yebaloon sa maam ju tedd ja des France bërki démb bi ma taxawee Arc de Triomphe ca France dama ne leen pour lu woon ak sëñ Touba ak Cheikh France làkk ay allemand keroog bi Hitler di wax naan si ce n'était pas les noirs je bombarderai la France dans vingt quatre heures et je mettrai de Gaulle dans un bouteille et je lance dans l'océan Atlantique booba Hitler ko la jël te sëñ Touba rek régler problème bi sëñ Cheikhouna Bousso sa way juróom fa mu nekk xolam sedd na tey Mama Sa tey Serigne Fallou Bousso fa mu ne lim doon suuxat jëm na biir te fii nag mooy preuve keroog bi ko tubaab bi jaarale fii keroog la romb waa Indorloos machine ba rulle ba weesu Mandorloos Abdoun la capitaine Blé ko teeru ba waa Angleterre la tuur yor yor la gaal bi jëm Conakry bisub dibéer noonu yaa ngi naan ngiri ngiri ca tàkku saani suuf gaal ga dun buñ naan tubak marañ yooy konte keroog la Bamba njëkk a gisee Kurmaana ak Timileeku Kurbo ñu néewi maana mu daal di romb Accra ak waa Cameroun sa Sandra la wàcc gaal ga ne fa ñuul waxtu la fa taxaw ñu lit mu déqi ilaa Conakry tubaab yay soqi mu dellu war ca gaal ga dem Lomé dem Assamé dem Kotoumou dem Dahomey ba bësatee Seex Bamba xëy dem Dahomey romb Lagos ca kaw tubaab yay armée fii la français yem ca yooye waxtu Seex Bamba romb na leen mësa tiimal waxtu malaka nii maaliku inda daw mi maa at kafaani utaata saw mi keroog la daam tàbbi gii ju kongo kabla pisa la wàcc ne ma gongo ilaa nabi wa jattu fii kabla pisa maa at kafaani utaaka tubaab yi naan ko yàllay gabon gi ñëw na mu mel ni gaynde sibi goog dàngak na i ti koo taxaw muy waaxu te taxti koo taxawlu wéy la baaxoo commande yaak alkaati yey commandé xàmmeewu leen ku wax mu teg ca waande gendarme réeg gendarme saak soldaar sa ñépp ko mujj di raamal ni gaa yi daaru gaa waaye yëkkati leen seen loxo ca kaw wax jërëjëfe Serigne Touba waay waaye gars yi Serigne Touba gañe na gañe na guerre bi gañe bi mooy sëñ Cheikh Mbeng sëñ Abibou Mbaye gis naa ko l'ancien ministre l'ancien conseiller ministre finance bu Ablaye Wade ma nga nële bi la seetaanee publicité rek la ne damay dem Gabon sëñ Kalam la nga doon dox ndakaaru gis nga résultat bi tey kii rek bu ñëwoon ànd ak rakkam ji sëñ Cheikh Khadim doy na sëkk man dama doon sax ubbi waaye ñi ngi may jox murid yaa ngi bég ba may jox àddiya ñoom far far far te cérémonie bi rek lañuy ñuy taxawal soxna Batoor jërëjëf li yàlla na sax ñun fi may tëje jox seex ginnaaw suba ña nga masaalikul jinaan di màggal téeméeri at yi sëñ Moodu Moustapha yóbboo sëñ Touba Touba eh loolu fii la waroon amee ndeysaan sëñ Basiiru sa sa mag ju baax ja sëñ Cerno maa yomba mu mu daanu dal ne ma maam moor seex mbee nga ngi toog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 xaaral ma bàyyi bala maa tàng waay sëñ Amadou jërëjëf Mbakke yow sa ñëw Gabon sedd na xolu murid sedd na xolu murid de ndax taxawaay bi kon sëñ Cheikh dañ lay bàyyeeg ta kàddu gi yaay dalal ñëpp yow la ñuy diglu yow tudde nga maa yomba doom foofu la bëgg yem fi mu ne maa yomba li tax mu gën a siiw yeneen dëkk yi sëñ bi dafaa dem dafaa dem rek baarakali fi xarakaati wa sukkoot rabbi lazi xat-xaadali kun fayakun musuwaar bu ñu jëndee Touba ca bitig ya moo ëpp valeur sax jasineer boo jëndee marché HLM la tax mooy kañ ca tudd la tudde nga làmbar na doom yaa daan wari ji danoo bëgg nga dalal nit ñi ba ñu xam fi ñu jëm suba mooy fan vous avez la parole baado auzu billahi min aseytaan rajim laa xawla wala xuwata illa billal azim mbokk yi fi teew mbokki jullit yi kàdduy Baay Faal moo na a fii yoo xam ne lu ci gàkk rek wala mu desee mat rek defe naa dinañ ñu ko war a mën a baal ndax jëm yi teew ci saal bi yàlla def na waajalal nañ leen ay conférenciers yoo xam ni lii ñu fi war a daje mën nañ koo tënk ci làkk yépp ci français arabe mën nañ koo tënk tamit ci wolof yi ñu nàmp ba mu jot sëkk sëñ Ahmadou Mbacke ngi nii toog làng ak professeur Baye daam mbay kon mel na ni li war a am fii moom signalé na boppam sëñ Mame Mor ñu ngi nuyu waa Gabon yëpp waaye nag suñu wàllu bopp ñu ngi jégalu waa Gabon ndax fanweeri at ak benn ci ren ñoo ñoom ñu xaw fee géej ñu ñëw di taxawal si lii kenn ku ci ne am ci sa wàll te waroon jotal gi waroon naa mën a am kon nag mbokki taalibe yi. nga xam ñoo fi teew waa Gabon gépp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare te di leen jéggulu bépp rëcc-rëcc boo xam ne am na ci liggéey sëñ Tuubaa bi nga xam ni doonuñ ci dara kenn lañ ci murid rek waaye am nañu bëgg nag maanaam di xam le ni lii sëñ Cheikh Gueye prophète Cheikh wax dëgg la njiitu réewum Gabon muy pré muy président Oligui jàppale nañu recevoir nañu Sénégal promettre na sëñ Mountakha ni suuf si nga xam doon nañ ko sàkku mi barab bi sëñ Touba nekkoon nee na ministre de tourisme mi président bi nee na li ci des la balle est dans votre camp dinañ leen jox suuf si ngir ngeen amal fa ay sooroor ngir ngeen amal fa kër soxna jaara ak daara Mamoon Sali fu leen soob kon beneen ba ca des premier ministre d'affaires étrangères am bi nga xam ni mooy Régis Onanga Mamadou Ndiaye te kenn ku ne xam ne ni ambassadeur la bu yàgg Sénégal daan dem sëñ Muntaxa lu baree bari xam ko moom moomu bi yàlla dogalee suñ borom def président Oligui ci teetu réew mi moom la jëli Sénégal indi ko def ko ministre affaires étrangères sëñ Muntaxa bind ab leet jaaree ko ci karawaanu Mayombe bi ci turu sëñ naa Buso bi mu teg ko ci loxoy excellence damay tënk rek ndax waxtu wee gàtt te bëggumaa wax lu bari te sëñ naa mi ngi ñëw fii bu ko defee li ci manqué yépp ñu mën a ànd mott mottali ko ndax xam nañ ni conférenciers yi ñoom euh, ñu mel ni Cheikh amadu dëkk bii sëñ Tuubaa ni woon yasarali mun naa la daal li man weli man xaadali maa xaba an kullu foo mën a yem sëñ Tuubaa boo fi wàccee sa ñaari tànk yëng nga sag yokkute sa diggante ak sëñ Tuubaa ndax xat-xat yi aéroport rek bañ fa wàccee balaa ñoo dem seen kër temps bañ fa daj xam nañ ni jël nañ seen wàll tey jii ci liggéeyub sëñ Tuubaa bu màgg boobu sëñ Mamor ñu ngi nuyu waa Gamoo ci turu sëñ Abdourahmane Mbacke mii toog sëñ Abdourahmane Mbacke moom sëñ Abdourahmane moom doom Daaru Muxti ak sëñ Sidi Mbacke mi nga xam moo fi nekk ak kilifa yi nekk nga Gabon yëpp président daay yi ak kilifa yi ñu ci jiital sëriñ Baraka di ci toftal sëñ Massar Gueye bëgg Saliou ak ñoom Baye ma Ndiaye ak murid yi ne ci dëkk bi yëpp ñu ngi leen di sant te di leen xamal ni li nga xam ni moom lañ jël muy liggéey sëñ Tuubaa di ko yëkkati sëñ Fall bu so nee woon ne moo sut fanu doomu aadama nañ taxawal sëñ tubaa loo xam ni ku ñëwati mu mën a doon fondement nga mën cee teg saw xeer kenn ku ne xam na ni may ñu woon sëñ tubaa fu mu ñeenti bantam ñuy simpi sànni buñ demee ba di ko fa jox suuf kon ñi yaakaar sëñ tubaa ñëpp te wax ji mën a dem ba àgg ci ñoom seen wàll ngi ci waaye ndokk nag bi nga xamee ne tey jii rek am na murid yu tàmbali jaayante ay tonni ciment yu jëm Mayumba sëñ Maam Mor ñi ngi sant bu baax a baax ci tur waa Gabon yëpp ci cant gii nag mooy cantuk sëñ Fall sentuk sëñ Seexuna Buso di cantuk njabootu sëñ bu Buso yëpp di cantu njabootu karawaanu Mayumba bi nga xam ni ci lañ nekk di ci yëngatu te ànd ko ak murid yëpp bu loolu jàllee falaa jëm si Seex Basiru Mbàkke ñu ngi sant bu baax a baax sa mag ja sëriñ Koso ndax lii fii mbir mi ak si tey ab liggéey ma ngi ci sëñ Koso yàlla dogal na moom la sañ sëñ Muntaxa yebal fii ci première édition bi mu ñëw ñu ànd maa yomba yàlla dogal mu gisanteeg maire dëkk ba gisanteek autorité ba mu delloo ouverture Massalikul Jinaan moom moo leen yóbbu ñu fekkee ji ouverture ba bàyyiwuñ ba niñ defee fii ñu toll jumelage maa yomba Lambaréné ak Touba maire Touba ñëwoon na fii dikk dox si jéego yooyee ci Lambaréné ak maa yomba ak Touba kon jëf joojee nga xam ne am na moo wommat ministre bi ministre de tourisme bi dem gi mu demoon Touba di yoti sëñ Muntaxa caabi maa yomba kon nag ñoom waa Gabon dañoo wax ni autorité yi dale ci président bi ak ñoom ñëpp liggéey bi dinañ ci jàpp ba mu àgg foo xam ni maanaam fa la seen kàttan yem te it ba mu yebalee ay kilifa ca Touba muy labbem muy lab bi nga xam ne mooy archevêque bi boole koog maa yomba ak délégation bu mat juróom-ñeenti nit bañ demee loolu lañ doon yotti sëñ Muntaxa loolu lañ ko doon waxi sàkku nañ fa ñaanuk sëñ bi ñe boo xam ne dina daj ci àddina bépp kon nag sëñ sëñ Basiiru yaag sëñ Mamadan mi nga dendal te soxna Baali meññi ko te sëñ Moussa ba soxna Baali yebal ko waaye muy nag sëñ sëñ Mamadan moom sëñ Moussa Basiiru mu Seex Basiiru ngeen ànd ñëw fii làngoo ak suñu ambassadeur excellence Seydina Omar Thiaw mi nga xam ni liggéey bi nuy def mook sëñ njagaloo mi nga xam mooy conseil bi wala conseiller am ca ambassade ba ñooñu ci taxaw guddeeg bëccëg di ñu jàppale ba mën a agsi fii ñi ngi leen di sant bu baax a baax tey xam leen ni nag lii ngeen def mooy ndigalu sëñ Muntaxa nee na moom Seex Muntaxa xam le sëñ bi rekk ci des xam le sëñ bi nag gisuma lu ca jiitu topp barab yi mu nekkoon ci Gabon fenn fu ne nga def ab màndarga loo xam ni ñii ñëw ëllëg bu ñëwee mën caa teg seen bët mu mën a doon loo xam lu fi sax ba faaw la kon daal kàddu yi nga xam moom lañ doon jël di ko jiital xam naa du mën a mate nam mate nam war a mate waaye sëñ seexu naa lañu ñu sàkk mu ñëw bu ko mu jot li kàddu ndax àndoon nañu waa akasa waaw waaw sëñ seexu naa day ñëw ndax sëñ seexu naa xam nañ ni audience bi ñu amoon ak sëñ Muntaxa daf ko ni woon nañ ko yaatal ci kilifa yi bokk yoonu wi yëpp bala dale ci kër sëñ Modou saa ba ci kër sëñ Mourtada Mbacke fenn fu ne dem na fa yaatal ko la dale ci kër Cheikh Ibra ak Cheikh yëpp dem na wax leen ko tey defe naa ñu ne ci dëkk bi yëpp bokk nañ gisandoo kàddu sañ mun Muntaxa yi ak yam digal sañ Bas mu wax ko yaakaar naa ne ñëpp teg nañ seen bët wala ñu wala ñu dégg ko kon nag am na lu ci am nag loo xam ni xam naa dama xamut maak professeur Guèye Seex ku ko ci war a wax mooy ñi ñu war a rendre hommage mbokk yi nga xam nekkoon na fi te ñu war leen a rendre hommage maanaam réduisé nañ benn liste boo xam ni ñi ñu la rendre hommage ñi ngi ci mooy ñi ñu nekkaloon te ñu dawlu te bokkoon liggéey bi tañ jaxasoo woon ak mbokki jullit yi nga xam ni dawlu nañ fi suñu ginnaaw ñëpp tënk nañ ko ci benn liste professeur Cheikh Gueye dina ko jàllale jàllale boobu mu mën a mu mën a jot ci ñëpp. am na nag ay jëmb yoo xam ni nekk nañ ci dëkk bi ak ñu nekk Sénégal ñu àndoon ak ñoom ci liggéey bi boole leen ci lu mel ni. mbokkum taalibe bi mu naan sëñ Ablaye la nga xam moo defar barabu sëñ Fallou sëñ barabu sëñ Fallou bee ca Touba ñu boole ko ci liggéey bi waaye nag liggéey bii soxna Bali mooy suñu ndey tey mooy suñu ndey ëllëg ndax soxna Jaara Buso moo demoon seeti ko ni ko danoo bëgg liggéey bi ñuy def fu mu turlee gis la nga ne ci suñ kanam ba moom mooy marraine marraineu liggéey bi saa su ne moo tax mu ñëwaat yebal sëñ Mamadou mais mu ñëw wet suñu ànd ak ñun liggéey bi ku ñuy wax Pape Sini Thiam ñu bari xam nañ ko fii moom sëñ Xalil moom alaaji Fàllu Mbàkke nekk ak ñun fii doon fi yëngoo ba yàlla bari ay tànkam ki i jéegoom ëppee Sénégal taxaw nañu jàpp nañ ci moo fi yebal Jibi Joom mais ak soxna Mariam Ndiaye ñu ñëw def ci seeni taxawaay yu mat sëkk ak ñeneen ñi nga xam ne aju nañ ci ñëpp bu ko defee moom su jotlee hommage yi lépp loo xam ne manqué nañ ci dinañ ci mën a dellu siwaat ndax doomu adama moom xaj na ci cérémonie bi ni mu guddee ak jànkat yi fi teew tañ annoncé leen kenn ku ne xam ne sëñ boole mbay ngi nii toog sëñ Boole Mbay mi ngi nii toog euh, sëñ Ilimaan Touré ak niñ ko waxee ñoom sëñ ni ko maam Mor daal tudd na ko léegi te dina ci siwaat waaye nag ma sunu jën ak soxna maam Issa ak lu café mi ngi nii toog ñëw na fi ay yoon ànd ak ñun kafeem gi day daw fii ba Maayomba ba làmba naag muy laa kon soxna maam Issa ak ñëwam yëg nañ ko fii bu baax a baax mu àndoon ko mbokkam ma soxna jaara ñëwaat fépp fu liggéey sëñ Tuubaa di jëbee fii ba Sarsara fii ba Amérique sonna maam isa kafeem ngaa ngi fay jàll te dundal mbirum sëñ Tuubaa ak wane kook ak feeñal ko rek tax ma dellu wax ni jëbu ju baax ju tedd mu Muxaddamatul Xidma yebal ko fi muy sëñ fàllu mais nga xam ne moom daa ñëw siwilu waaye bu ñëwee taxawit moo fi taxawal Muxaddamatul Xidma ak sëñ Abo Bousso ñu dend ne te ñoom ñëpp li leen tax a jóg te andi leen fi mooy ñëw jëmmal si jataay sëñ Tuubaa bi maa ngi gis sëñ xaadim ngom ma law fawsé ni nee ci kaw ak mbokki taali bi fi teew ni ko maam moor waxee waaw sëñ ñaan ak ñoom sëñ gilaay toog ñoo xam ne ñooñ sax ci liggéey bi lañ bokk sëñ Omar Dieng ñoom ñëpp ñu déplacé Sénégal ak suñ coordinatrice nationale bi nga xam ni mooy soxna Batoor Seck kii wax na ko léegi am na sax ñu mel ni soxna Xadi Soumaré ñu jóge France jaari Turquie ñëw fii mi ngi fii te di coordonné liggéey foofu booba nekk fa kenn ku ne xam na ni tamit taxawaloon nañ benn cellule ci États-Unis boo xam ne kuñ naan sëñ Demba Ndiaye moo koy coordonné Washington ak sëñ euh, Abdou Abdoulahad Gueye ci Rome loolu lépp liggéey bi day door tàmbalee fii waaye ca kanam la jëm lu nar yaatu lay doon loo xam ne mbokki bu yi ne fii yëpp ñoo ko fas yéene ànd ak diaspora murid bépp waaw sëñ bu Mbaye waa excellence dama déggoon nga tudd ko ma bëggoon koo kii waaye Cheikh bu Mbaye moom moom it France la jógee jaar Sénégal ànd ci délégation bi gunge sëñ Bass fii tey jii ah sëñ Seex Xaadim waaw foofu moom foofu moom dafa xaw a jege moo tax ndax xam nga ab Baay Faal moom lum la ni moom la dama am sax mag yoo xam dani ma ab sëñ dëgg Faal lay sant waa ji ko ah mu ne ma am Mbàkke bokk xam nga Baay Faal moom loo ko mën a wax xam nga koo xam ne lu mu àndak ak ànd ak yow boo taxawalee julli mu wuti ruq bu mu toog kooku moom xam nga ni Faal rek sëñ seen Xaadim sëñ Xadim Fall moom sëñ moo Talla Fall mi sëñ Touba yar moo ko meññ mu doon ku jub ku baax ku bëgg maamam moom sëñ Cheikh Xadim sëñ Cheikh Xadim mii moo taxawal ci Ndakaaru premier mais boo xam ni mbooloo ma xajuñu Marius Ndiaye loolu ñoom sooy bu mbaay mais sama jarbaat bee doon nañ ci seere ak ñu jóge Dakar ñoom ñoom sëñ Xadim ak sëñ Moutala sëñ Cheikh Xadim mi jóge Paris doy ko mu dagal ay billets ay mbooloo indi leen tey jii ñu teew fii ànd ak rakkam gi sañ Jili ak sëñ Moussa Fall ñoom ñëpp ñu ñëw toog ni ba Baye Fall yi wër leen kon daal sëñ Mame Mor man moom dama santoon ndax ñun liñ ci doon ci liggéey bii buñ ko doon xool ci jàkka noddkat lañ ci mën a doon kat ni sëñ Xaadim defoon waaye bu ñu wuysee nag dañu wut imam kon sañ sëñ naa ñu ngi sàkku ab teewaayam fii bu ko defee mu ñëw jël kàddu gi euh, li nga xam ne dëng na ceeg li ci mata di lépp mu mot li ko ndax liggéeyam liggéey bu yaatu la liggéeyal karawaan bi ci Sénégal la dale ci sañ sëñ Modou Moussa seex yi leen lu ci ne moo dem jëli leen jëli kàddu yi ba ñëw fekk ko fa ànd ak moom di àggal liggéey boobu ba mu ñëw fii tey kenn ku ne xam na ni nag kenn ku ne xam na ni <laughs> kenn ku ne xam na ni moom walaay asib diirub li sëñ Fall bu su dund ci Gabon tànk mosu fee tegu daara la yor ca tuubaa di jàngale ni dama bëgg a liggéeyal sëñ Touba ci alxuraan mosu sa ñëw Gabon kon bu ñu demee ba liggéey bi taxaw ah yaakaar naa war na ci am wàll nag su ko defee kon wax dëgg yàlla loolu mooy ab teewaayam fii ci biir di ñëw di dimbali liggéey bi ci biir ca Sénégal àndaat ak ñun di ko dimbali ci biir di éditions yi defagun yépp muy ñëw di ko ànd ak ñun bu ko defee nag ñi ci doon jàpp ak di ci wax lu baax ak jéego yi ñu ca doon def loolu dina ko jot li mu leer nit ñi ñëpp ak wóllëreem wi sëñ Baye Dame Mbaye ak sëñ Moustapha Bousso mu àndal ñëw fii tey Gabon sëñ Seexuna bisimilah.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 Serigne Mountakha Mbacké di ñaan yàlla suñu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko te dëpp ko kàttan ba naal yi muy naal ngir yoonu murit mu àggale ko ci sagoom ak mbooleem njabootu Cheikh Al Khadim gi yëpp di jaarale ci nuyoo bi ak ziyaar bi doomam ju baax ji toog di Serigne Bachirou Mbacké mu teew fii tey teewal fi sëñ Mouhamadul Mountakha ànd koog rakkam sëñ Mouhamadan Mbacke ci teewaayu soxna Bali ñu teewal fi sëriñ bi waaye teewal fi tamit yoonu murid bi yëpp ñoo leen di dalal di leen sant di leen këram di leen massawu ci coono yi waaye sëñ Cheikh Mbeng wax na ko léegi sëñ Thierno Mbacke daan ànd ak ñun liggéey bi ci at yu bari daan ci sonn daan taxaw mook sëñ Xaadim Mbàkke tey su borom dogal euh, sëñ bi yónnee leen ci yeneen barab ci yeneen i liggéey ma waral tey jii euh, téewuñu liggéey bi nag mu nekk liggéeyub sëriñ Touba liggéey bu yaatu ginnaaw biñ ci amee ndigalul sëñ Muntaxa ñu gën koo miin nag ci karawaan Mayumba muy xeeñcu jaar-jaari sëriñ Touba ci Gabon loolu mooy liggéey bi waaye nag mu am ay projet yu nekk ci kanamu liggéey bi liggéey bi nag am lu sos liggéey bi ak karawaan bi ñuy sàkku rekk ñaan ci Serigne Falilou Bousso suñ boroom dolli ko ak leer ak mbooleem ñam nekk na la woon fii te jiitu ak soxna la suñ seex wax na ko léegi dafa waxoon ne dinaa fondumal sëriñ bi loo xam ne bu ëllëgee lu ñu bëgg liggéey teg ko ca kaw liggéey ba wutal ko ay kayit ONG boo xam ne mbooleem ñi nekk fii ñëpp ci tuuru ONG boobu lañ duggee biir Gabon mën a def seen ziar mën def seen visite muy liggéey boo xam ne di tax ñu koy tudd ab soññee la ci kenn ku nekk war a xam ne war nga fee bàyyil sëriñ bi loo xam ne bu ëllëgee dana nekk roywaay ci ñépp mu ànd kook mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk fii te Sëriñ Tuubaa rek boole woon leen boo xoolee ñoom ñëpp kenn ku nekk njëkk ngay xam sëriñ bi am nga sa wasila bopp booy ci Serigne tubaa ñu ñëw fii nag di xeeñcu Serigne tubaa gis ko mu nekk ci liggéey Serigne tubaa di ca sonn guddi ak bëccëg ñu daw tatu ko ko ànd ak moom ci liggéey ba su ma tuddee sëñ Cheikh Mbeng mii doon wax léegi rek mel na ne dana yóbbaale mbooleem taalibe yépp soxna ànd kook bi sëñ bi nelawee soxna jaar itam toog palaas ba mate ko ànd ak mbokk taalibe yi ànd ak njaboot gi yëpp ci liggéey boobu ab diir suñu boroom moom ko moom it ñoo ngi koy ñaanal yàlla dolli ko ay leer mbokk taalibe yooyu nag ànd ak njaboot suñu fàll yu gépp ñu fas yéene liggéey bañ laal suuf soxna maam Asta Bousso mi ngi foofu teew nekk présidente ONG bi di jàmbaar lool ci liggéey bi euh, ànd ak mbooleem mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo àndoon nag sëriñ bi ci liggéey bi fas yéene liggéey boobu jëm kanam kon loolu ñoom ay gor lañu ay taalibe lañu yoo xam ne Sëñ Tuubaa rek moo la ñor liggéey bi nag ni ma ko waxee léegi rek liggéey bi Sëñ Tuubaa la boo xam ne kenn moomu ko dañ ci tàllal loxo mbooleem koo xam ne sëñ bi ñor na la Sëñ Tuubaa mi ngi lay ñor ak foo nekk rek liggéey bi mën nga cee tàbbi liggéey bi Sëñ Tuubaa muy liggéey boo xam ne ginnaaw biñ ci amee ndigal ci sëñ Mahamadul Muntaxaa mu ñaan ci carte membre bi njëkk ci liggéey bi moom moo ko daggal boppam bindal ko ci loxol boppam moom sëriñ bi wane na liggéey bi ànd na ci ñaan ci ne fu ngeen bëgg àgg dana fa àgg ñaan googu nangu na lu ci bari du ci ñëwaat ndax suñu seex Mbeng wax na ko léegi mu wax ñu gën koo yaatal yaatal boobu ren am na beneen dimension boo xam ne karwaan bi am na ko beneen xar ci yaatal ko ci mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci yoon wi ñëpp di ko tàmbalee kër sëñ Mudu Moustapha ba ci kër sëñ Mahamadul Motoda ak mbooleem njabootu mbusoo bi ak ci mbooleem seex si yëpp kenn ku nekk dem nañ fa waxtaan ak yow leeral la liggéey bi nga ubbil ñu sa bunt ñu ànd ak mbooloo mi dem fa taataan fa seeni kàddu muy kàddu soññee muy kàddu Eh, defar muy kàddu yi lépp yaakaar naa ñoom suñ seex mbeng mi ak suñ kalaam ak suñ baddo ak suñ àllaajuró ma nekk Touba àndu nañ liggéey bu yaatoo yaatu ci kilifa yi xam naa loolu pour lim kilifa yooyu yëpp dañ koy xaare incha allah rabbi xëy na eh, ba danañ gën a leeral kenn ku nekk kan dem lam wax ak engagement ya nga xam léegi jël nañu ko waaye ñu sant leen gërëm leen ñoom ñëpp ndax seen liste bi mu ngi nii waaye ku ne xam na ne programme bi dafa xaw a changé tuuti waaye dinaa ci ñëw ci anam gu leer a leer yaatal ko bu baax a baax mbooleem ñooñ ñëpp nag kenn ku nekk carte membre bi nga xam ne sëñ Mouhamadul Mountakha dagg na ko ñoom ñoom ñëpp ko dagg wane na liggéey bi ànd nañ ci ci biir ak ci biti mu amaat beneen jéego itam mooy ñu dugal ci xam boroom xam-xam yoon wépp tàbbi nañ ci liggéey bi def nañ ci ay liggéey yu am solo yoo xam ne su génnee incha allahu bi danañ gis njariñ lu kawe dañ ci gis beneen dimension boo xam ne waxuma la euh, murid yi waaye yaakaar naa ne mboolem ku ab jullit da ci mën a jariñu dana gën a mën a yaatal liggéey bi ci àdduna sépp ba nga xam ne danañ mën a jàllale message sëriñ bi bu baax a baax loolu liggéey bu am solo lañ ci def ci jamono ji ànd kook waa Rawdu Rayaahiin ñi nga xam ne ñoo tënk euh, yoon wi ci xam-xam ci bind ci lépp buñ ci tuddee ku mel ne sëñ Ahmadou yu Mbacké mi nga xam ne ay taxawaayam ku ne xam ne ko ci euh, njàngale mi ko sëñ bi dénk yooyu yëpp ñi ngi ci liggéey liggéey yoo xam ne bu sottee da ngeen xam ne liggéey bii liggéey la bu mat a sonne bu mat a tàbbi bu mat a bàyyi xel bu baax a baax danañ gis incha allah rabbi ay meññitam ci kanam yu ñëpp mën a jariñoo loolu mooy xar kanam bi nga xam ne léegi karawaan euh, bi ak mbooleem ñi ci ànd ñëpp ci liggéey bi ñu kenn ku nekk ab seen la rek kenn ku nekk am nga foo nekk dafa liggéey yaakaar naa xëy na loolu danañ ko yaatal ci beneen jataay yi incha allah rabbi kenn ku nekk ñu wax euh, liggéey yiñ ci def ak fiñ ci toll ba mu gën a leer ci mbokk taali bi yëpp loolu yaakaar dana am solo xam naa kon euh, fi may tëjee rek loolu moom rendez-vous lay doon incha allah rabbi fi may jeexale rek mooy di sant kilifa yi nga xam ne dañoo jóge Touba di ay kilifa bàyyi lépp ak seeni coona ñëw ngir xeeñtu sëriñ bi bi ñu wàccee léegi suñ Mamoor mi di ñu wax mbégte mu ñu àndal ci gan yi ñëw xam naa ne sonn nañ waaye bi xadareel kat di takk sibul maali ñoom xam nañ loolu ba tax na euh, coono yooyu yëpp day nekk ay bànneex ci ñoom duñ ko duñ ko yëg ndax bëgg gi bëgg Sëriñ Tuubaa ak xam ne Sëriñ Tuubaa ni mu sonne woon ci gaboo gi ñoom ñu dugg wol dugg ay 4x4 dem Mayomba yuñ climatisé te sëriñ bi tumuranke woon lool yaakaar naa ne loolu dana raafal seeni coono misal seeni xol ba coono bi du ko yegee dañ ko war a yegee mu mel ne euh, sëriñ fa liilu Mbàkke moom sëriñ Baye Touba Mbàkke bokk ci waa xidma Touba dafa liggéey liggéey yu am solo ren jii teew na ngir ànd ak ñun liggéey bi waaye ngir gën koo mën a tasaare waat bu baax ngir bu demee gën a mën a leeral liggéey bi dimension bi ma am ak fi mu toll. Serigne Abdou Lakram moom it euh, teew na fi yàgg ànd ñun jataay bi jóge tubaa bay Abdou Bousso moom it yàgg fee ñëw yàgg ànd ñun jóge Touba Serigne Munnaar Bousso bi xalifa Serigne Ali buso di mag ci Serigne Fallou yabal na Serigne Moustapha Bousso doomam ma nga ne toog ngir mu ñëw teewal ko fi nekkal ko fi ànd ak liggéey bi ci waa karwaan bi ngir jëmale ko kanam ak mbooleem waa euh, daayira waa Mbusoobe bi yépp sëñ bi jox leen ndigal ñu ànd ñëw ci liggéey bi nii soxna Astu Mbàkke ak soxna maam Isa Mbàkke itam ñoom it jógee ba Tubaa ngir ñëw teewee liggéey bi ñoom it mbooleem karawaan bi ñu ngi leen di sant di leen xamal ne taxawaay yooyu yëpp yëg nañu ko bu baax a baax ñuy bara cant Serigne Ahmadou Mbacké mi nga xam ne moo jóge Daara Mooti teew ngir liggéey bi ak Serigne Baye daa Mbay mi nga xam ne satub Maamor jaar la ak Sëñ Mor Soxna di doomi Longoor fas na ñëw def lii nga xam ne mooy euh, waxtaan wi ànd ko Sëñ Ahmadou Mbacké mii muy waxtaan wu am solo woo xam ne bëgg nañ ñëpp teelu ko may ko nopp dana am njariñ lu am solo lool ci bu ñu ko teewloo diglu ko incha allah bii mu nekkaat tamit koo xam ne culture la ci maanaam euh, ci lañ na saxaafa bii ñu nekk mu ngi ci liggéey lu am solo ngir liggéey bi gën a mën a baax di euh, nuyu suñ mbokk ma suñ Faliou Tamba ku ne xam na ne ni mu dem ak waa karwaan bi daan fi teew at mu nekk ànd ci liggéey bi di ko jàllale sonn ci lool ren nag yàlla dogal mu am ngànt ba ñëwut waaye karwaan bépp ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy euh, ñaanal yàlla defal ko euh, fam nekk tawféex ak euh, lu kawe njortem foofa kon xam naa bu ñu nuyoo rek mbokki taalib yi nga xam ne ñoo fi nekk suñu seex mbeng ñëw na ci te bu ko waxee rek mel na ne waxal na ko ñëpp kon du jar may dugg foofu sëñ Seexul Xadiim mi nga xam ne moom it moom leen darajaale bisub maam Cheikh Ibra Fall mu jógee ci réew ma sori mu ñor ko lool teel a ñëw booba léegi mi ngi ñëw ak pasteefam toog toogaay woo xam ne toogaayu pasteef la toogaayu murit sareex la ndax maam Cheikh Ibra Fall daana wax naan amuk taalibe moo gën ami taalibe parce que taalibe amuk taalibe dana jariñ nit ba biir bàmmeel kon nag euh, ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy jaajëfal bu baax sëriñ Abdourahman Mbakke Daarul Moxti di kenn koo xam ne kilifa la ci dëkk bi di fa am ay taxawaay di jàngale di jiite di gindee moom it yàgg ànd ñun liggéey bi di dem Mayomba di dem ak a ñëw moom it ci suba ba léegi mi ngi euh, teew fii di nuyu kilifa yi nga xam ne léegi ñoo nekk ci dëkk bi yëpp sëñ Baraka ak mbooleem pour jiitee eh, dara rek ci biir dëkk bi rek ñoo ngi lay nuyu di la ndokkeel di la sant di la jaajëfal di la xam ne liggéey bi liggéey Sëriñ Tuubaa la liggéey bu ñëpp la Sëriñ Tuubaa nag képp koo xam ne yaa ngi koy liggéeyal génneel sa xol seytaane dàq ko rëy ak mbooleem lu ci aju ndaxte xol bu tilimee mën na laa gàllankoor ci yu bari loo war a dox jëm ci liggéey Sëñ Tuubaa mu gàllankoor la ñoo ngi tàllal loxo ñëpp di ñaan ne liggéey bi dañ koy liggéey ñiip nekk di ko liggéey liggéey Sëñ Tuubaa la waaye nag liggéey boo gisee day am ay loxo yu mu nekk rek waaye liggéey bi liggéey bi ñëpp la kon bàyyiwuñ kenn ku ci waay man di nekk rek bëgg cee tàbbi ci liggéey bi incha allah rabbi liggéey bi yaatu na lool amul fenn walla kenn koo xamee ne dana am fenn fu mu yem ci biir liggéey bi euh, ndax Sëñ lañu liggéey ñun ñëpp te am naa yaakaar ne am na ak fay àdduna amu solo ñun ñëpp bu ñu xoolee dëkk bi moom ñaar rek fi nekk yàlla na yéex kenn ku nekk bis dana ñëw nga jóge fi ñibbi sa réew wala suñ borom dogal ci coobareem nga des fi kon bu ñu xe bu ñu delloo xel ci ñaar yooyu rek dañu war a mën a boole suñu xel ak suñu xool fas yéene jàpp liggéey ngir ëllëg ñu bàyyi fii way war fet bàyyi fi doxeen war a fet kon ñoo ngi jéggalu ci kàddu yi lépp lu ci dëng rek ci ñun la xam naa ne Serigne Cheikh yaatal na ci anam yu baree bari yu mu waroon a leeral kon du jar ma ci ñëw ndax benn la lu mu wax ca côté boobu rek jërul ma fay dugg ñoo ngi gërëm ak sant ak di leen ñaanal ñoom ñi nga xam ne ay jàmbaar lañ euh, di sonn guddi ak bëccëg ngir liggéey bi bëgg jëm kanam kon maa ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullah képp ku ma fàtte nag nanga ma jéggal te xam ne duma aadama moo ma tadi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu من كيد من خلق فسار كنار الخل لي برما يرمى muy Tawfekh ju rëy